아, 그럼 이게 와이. Cheikh noo dundee koor. kii vidéo la. laaj ko lu muy. non koo gi ça va moom koo gi moom dafa feebar. non a baax. moom kese mu ñëw bu ma. waaw nag ah, euh, ah? vacances mu ngi neex. kay moom daal moom moom. au descente yaa ngi nekk da ngeen noppale ko moom. waaw waaw yaa ngi noppale ko bu baax a baax. Mm. Oh, ah. waaw maa ngi noppale ko bu baax a baax a baax. très bien a a eh, naa la. xanaa waaye sama naak maam jaara mooy sama paradise maam jaara mooy sama paradise maam jaara mooy sama paradise waali mooy seen paradise